والقلم وما يسطرون sàkku xam-xam na la jaral dem ba siin jàngale bi yoon bi alayhi salaatu wasalaam c 3 topp si tànk ya yaatal mbindum alxuraan édition 2023 jël yoon wu sori lool yoon wu gudd lool ruqe lool waaye ngir gëstu ji xam-xam topp boroom alxuraan ku fi taal taalub jàng bu dul fay ba faw si wàllum alxuraan sëñ maxtaar si waaye buñ leen limilee ñi nga xam ne ñoo jaar si ay loxoom di ngeen xam ni góor yàlla dëgg la ci wàllum xam-xam waral gëstu bu yaatu bi jëm si moom xam la leen kan mooy kilifa gi waaye it fan la jaar ba jamono ji nga xamante ni bii ay kilifa jaar nañ ci loxoom waaye lépp tàmbale njaareem gi mu gane àdduna ba dëkk yi nga xam ni fa la sampoon ay daara ngir jàngale diine jàngale alxuraan kookee lañ leen di xam xamleel tey dëkk bi mu fekk baax ak fi mu gane àdduna am na taalam ñu teewlu ko. bii nag mooy dëkk bi nga xam ne sëñ Maxtaar Xari mi nga xam ne moom lañ dara jaalee édition deux mille vingt sëñ Maxtaar Xari njaareem la ganee àdduna sëriñ Touba tudd ko tuddee ko Maxtaar Penda maamam waaye nag fii la nampee fii la feree fii la doxee jéegoom yu njëkk yi. fii la dund ba am juróomi at ak weer baayam sëñ Malick Bassine mii rekki baayam sanc na dëkk bu ñu wax Busra ci kanam mu yëkkati sëñ Matar Xari mii nga xam ne moomam édition bi yóbbu ko ca baayam boobu sëñ Malick Bassine mu dalal ko ba foofu la jàngee jàng ci ay fekk te sëñ Matar Gassane mii naa fi ni ci jumaa ji ak magam sëriñ Adama si ña ngi ca daaray sëñ Malick Bassine jooje ak ku ñu wax sëriñ Deqaay foofu la sëñ Matar Xari nekk di jàng di jàng ba un certain temps mu dem ci yeneen dara kon foofu la ñuy yem ci première état bi ñuy def. ñu ngi fii ci Daarul Mannaan muy Daaru Koungheul di dëkk boo xam ne sëriñ Mor Khady Sy moom maam Tafsir Mokhtar Pend Sy moo ko sancoon ci ndigal Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim ci atum mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am taarix la ndax Cheikh Moudou Mourtada moom Cheikhul Khadim def na fi ay at. tee nag fi boo xam ne nii sax war a Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim mi ngi ci. ndax bi tan bënne suñu moor ko si dafa jël si ndox mi euh, yónni ko maam Balla si mu yóbbu ko njaaram ci Sëriñ Tuubaa mu ñaan tefli ci ñu sotti ko ci teen loolu kon ci ci ngëneel li nga xam dëkk am na ko kilifa gu nekk nag wàcc na fi man ñoo xam ne 1967 ba léegi wala euh, ba léegi ñu ngi fi jàngal alxuraan ndax daara ji bi suñu moo ko di sancee ba léegi mi ngi dox te suñu mor mi ngi fi jógee 1942 waaye bi suñu waajur ñëwee waxtu woo la ko jël muy dem ba ci ñun ñi ay daara ci dëkk bi waaye daara ji bokk ci yi nga xam ne ñoom ñoo génn ci daara Serigne Mokhtar Khady di wax ne ñëw nañ ci dëkk bi di ndaam waaw daa daarul alimul xabir waaye nag mu siiw ci ndaam sëñ Malick Bassin muy deuxième étape ci li ñu tànn ci lenn ci daaray yi soqi ci daara Serigne Mokhtar Khady dëkk bii dëkk bu riche historiquement la fii de li ma ko waxee woon sëñ Mor Khady ak sëñ Malick Bassine ñoo bokk ndey ak baay lépp lu ñuy def lu ne daanaka sax dëkk bu ci kenn di sañ ci sa morom koy àndal fii sëñ Malick Bassine moo ko sañ waaye moo sëñ Mor Khady Sy ñoo ko ànd daanaka ndax dëkk bii mooy dëkk bi nga xam ne bi Serigne Touba wooxee sëñ Mor ak sëñ Malick ñu ñëw mu yëkkati këyit këyit tabax yu bari jox leen ko ne dama bëgg ngeen bindal ma ay kaamil ci seen loxoy bopp yi ci dëkk bii lañ ñëw dégg ko indi fi ñi nga xam ne ñoom lañ soxla ci liggéey boobu mbaar seen mbaar yu jekk nekk ci biir di bind ba bind fa juróomi kaamil yot ko Sëriñ Tuuba ndaam nag dëkk la boo xam ne ni bu bu bu bu ay ay ay jaar jaar waaye bëri ay jeexit la yoo xam ne ni ci mbiri sëriñ bi bokk ci rek daara ji nii nga xam ne moom lañ fi sampoon depuis jamono Sëñ Malick Basine ba léegi Sëñ Malick si nag def na ci taxawaay bu réeree ndax daara ji tabax na ko tabaxal na dong it ay nekkuwaay dong di yàlla def na ci ñoom it ñu dong yoo xam ne du ñëlwaani waaye dañuy liggéey di jàng ndax daara ji daara yare la jàng ak yare la du jàngam kese waaye dañuy jàng di yar ndaw ñi muy daara joo xam ne it wax dëgg yàlla gone yi fi nekkit yàlla def defal ñu ci tawféex ndax bëri ñu fi mokkale bëri ñoo xam ne xam naa ne seen alquran sori na loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara. di wax na ñoo ngi fii ci euh, Darou Salaam Bambouck Darou Salaam Bambouck nag képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di Sénégal ca alxuraan yitteel la mbirum daara yitteel la buñ nee Darou Salaam Bambouck da xam ne nekk nañ ci barabu alxuraan euh, barabu bu saf-sapp alxuraan barab bu génne ay kaang yu bëree bari barab bu defar ay doomi soxna yu bëree bari defar seeni i jikko jàngal leen téereb yàlla bi barab boo xam ne garab yi suuf si jaww ji lépp day présenté alxuraanul karim ngir saf goo xam ne saf na ko ci barab boo xam ne ay kaamili kaamili kaamil bind nañ ko fi barab boo xam ne e, ba alxuraan di wàcc ca Madina ak mu Mukarrama ndekke barab bii bokkoon na ci yi borom bi tabaaraka wa taala doon waxe ne dana ko sàmmi alxuraan jumtukaaya barab bi ci la bokkoon muy daal alxuraan yi bambug nekk ni sunu gannaaw mbokk yi lan mooñu ñu fi indi mooy e, c 3 di compagnie euh, Serigne Seck euh, di liggéey lu jëm ci wàllu aluminium lu ni mel El Hadj Serigne Seck yàlla na ko yàlla sàmm ca aar ko jiite ko. concours boobu nga xam ne mooy concours yaatal mbindum alxuraan El Hadj Serigne Seck taxawal ko bis boobu dañ koy dara jaale kenn ci ñooñ alxuraan yi kenn ci ñi nga xam ne liggéey lañ alxuraan liggéey yu ràññi ko kenn ci ñoo xam ne yar nañ aw nit defar nañ aw askan liggéey ci Sénégal liggéey boo xam ne bu kenn mënut a le doon ci wàllu wépp ci defar nit li gën a am solo. Euh, ren nag di juróomeelu édition bi ñu tànn sëñ Maxtaar Xadis yi di doomi sëriñ Mor Xadis yi nekk ñu nekk fii ci Daaru Salaam euh, Bambouk ni leen ko waxee euh, ay kilomètres la diggante bi ak Touba waaye rex la bu neex la tukki boo xam ne da ngaa jëm ci jawi alxuraan barab yi ñu jaar yëpp di ay daar yoo xam ne mi ngi soqeekoo ci moom foo ci dem rek ne buñ fa yemoon rek mu daal di doy ci kaaweli alxuraan yi ñu won mbind maa li woo mu rafet moo xam ne dañuy xam ne fii li tax yaatal mbind alxuraan jug moom ñoom ñu ngi koy jëmmal ci seen bu liggéey bu baax a baax a baax eh, kon ñoom ñaari ñëpp di waajur wi ak doom leen borom bi tabaraka taala doon leen yërëm yërëm leen jéggal bu baax a baax ñu fekk fi ay kilifa yoo xam ne danañ jël kaddu leeral ñu leen mooy cosaanul dëkk bi leeral ñu kan mooy sëriñ Maxtaar mi nga xam ne moom lañ tuddee eh, bis bi ak lenn ci ay ak daara ji nekk suñ ginnaaw ñenn ñoo ci génne ci ay kilifa mënuñoo wax ñëpp waaye ñenn ci ñu mën tuddal ñoo xam ne incha allah taala ci biir documentaire bi danañ am ñenn ci ñu dem si ñoom ngeen am seeni i kaddu incha allah daaru salaam bambog ku ñu wax sëñ Mor Khady Sy di doomi sëñ Maxtaar Penda sëñ Maxtaar Penda di ku ñëpp xam ci réewum senegal mi mu jëf fi jëf yoo xam ne jërul di tudd ndax ñu bare xam nañ ko ci wet gu nekk nag ñu bare xam nañ ko ci sëñ Mor Khady nag moo sañ ci Daaru Salaam gii ñuy wax Daaru Salaam Bambouk mi ko sañ ci atum 1934 ci la sanc ci ndigalal Cheikh Ahmadou Bamba mu boole ko na ay dëkk yu bari ndax ma nga njëkk sanc daaru Koungheul 912 ñëw dëkk bu ñuy wax daaru Moxti ñu gën ko siiwee ci Kura Murit fa ñëw daaru salaam gii ñu gën ko siiwee ci daaru salaam Bambuk jógee fa dem dëkk bu ñuy wax daaru Manna ma ko tuddee woon man na allahu alayna jógee fa jëm dëkk bu ñuy wax Daaru Naim kooku mooy sëñ Mor Khady moo sañ ci dëkk yooyu. bi yàlla defee alxuraan noppi ni ko sëñ Bass junjee léegi ci bi mu ñëwee Daaru Naim nekk fek magam yooyee te doon jëflante moom ñoom noonu mu doon ak ñoom ba yàlla indi ko Daaru Salaam gi 1953. mu sañ fi daara ji tey nga xam ne fii la ñuy defee waxtaan wi ngir euh, fàttaliku gi ñuy def ci moom. bi mu ñëwee fii di Daaru ci 53 samp daara ji di jàngale alxuraan ci gën a rafetee di yare ci gën a matee di koo xam ne li ñu xam ci moom suñ ko doon tënk dañ naan muridun saadixun aalimun warihun yooyu mi ngi woon ci moom te ñu ko xamoon ñëpp itam xamoon nañ ci moom loolu mu doonoon jëmm joo xam ne ku bëggoon alxuraan bëgg koo xam ne kenn mënu koo xiyaas ca fam toll ci moom ak yittuwoo gi mu ko yittuwoo woon mu doona ne jëmm joo xam ne ñi mu dëkkaloon ci réew mii ab jëflante ak ñoom kenn mënta misaal fa mu yeggoon ci moom ci pas-pas ak bëgg ak fas yéene ñëpp jariñu gis naa mu def ci alxuraan loo xam ne man xam naa ne samay at bariwul moo tax gisuma ko waaye gisuma ko lu bari daal ndax dem na ba toll ci at yi foo xam ne ci mag ak néew kàttan te teewut fi mu ne yu bari dañ ko ciy dimbale te teewut mu ngi waqaf juróom-ñaari isib ak yaari robo di ko tari fi mu tëdd da koy tari ñu bari sax jàpp nañ ne ma nga tëdd ci néeg ba noppi rek waaye fekk na sax mi ngi waqaf juróom-ñaari isib ak yaari robo. Serigne Makhtar xadis kilifa yu bëri jaar nañ ci loxoom mu jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam tarbiya leen ba tey ji ñoom it ñu bëri jaaraat seeni loxo ñu ay làmp dëgg ngir liital li nga xam ni moo di lislaam bi yaatal taalub jàng bi nga xam ni foofee si moom. lañ ko jafloo ni mu def ci ñoom alquran bañ am lañ am ci alquran loola mbooloo mu bare la moo xam ne mënuñoo tudd ñëpp xanaa ñu tudd ci ñenn ñenn rek bokk na ci ñooñee suñ Cheikh Ibrahima mii toog aadama yëkkati ko jox ko suñ maxtaar mu defal ko lépp jàngal ko alquran ba mu bind ay kaamil door fe jógee dem sakku ci xam-xam moo ñooñe bokk na ca sang bu baax bu tedd bii bu am ngor bii muy sëñ Abdou Karim mii nga xam ne ne xoolal jëf ji ni mu rëyee xool leen kër gi loole lim ko lu tax mu def ko mu ne lim jëlee fii saa boo ko waxee mu ne li ma jëlee fii ëpp na li ma fiy def bon lim jëlee fii moom te mooy alxuraan alxuraan ju ànd ak barke moom la suñu Abdou Karim jëlee fii Daaru Salaam daal daara ja euh, daara woon la moo tax bi fa demee te fekk daara ju mel ni lu raaf ndax suñ maxtaar dafa amul doom bu góor koo xam ne kii mën naa téye gannaawam ba tax dara jaraat wala gent sax bi ma demee nag na ma xamee woon daara ji ak na ma ko fekkee metti ma lool moo tax ma woo sëñ sëñ Ibrahima si nii ak sëñ Mbàkke si sëñ sëñ Modou Mbàkke si mhm. waxtaan teeg ñoom ne leen dama ko bëgg a defal sëñ sëñ Ibro Ibro Seniwa yow di Mbàkke loolu da fekk mu doon suñu xalaat nu bëgg ko loolu ba ba dañ ko tàmbali sax loolu moo tax ma def ko ne moo ko tàmbalee yoon moo fa ma sa dem di seeti di di di tàmbali ji liggéey mag ñoom ànd ba nii mu ba nii ba nii mu nii mu mel suma fa demee yoon mu ànd su ñoom daara ja nag ñoo fa newoon ci waa kër ñu baax ñi bari nañ hmm. daara ja dafa feesoon del del del sëñ Cheikh Ibrahima ñu xam na ci dara man mii ba ma fay dem sëñ jilim sëñ fàllu yàlla na ko yàlla yërëm lañ ma booleel addinaam lépp jàng alxuraan ni ko sëñ Modou wax jàngale alxuraan yare yare guddeeg bëccëg njël njël naaj wu tàng amutoon beneen programme bu dul jàngale alxuraan ak yare waaw ah, ba def ko ci nag mbooloo mu baree baree bare waaye nag ñu ñi fa jaar mu yar ñu bañ fa jógee gis nañ ne ak jamono ji ji ñuy dundoo loolu bu amutoon kon ma mara si sunu euh, sëriñ bi nga xam ne eh, eh, xamal nañu alxuraan te ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale euh, diggante 67 ba 74 ma nekk ci diwaan boobu euh, la ma fa jëlee xam naa ko ba ma fay dellu sëñ Abdou Lahad moo ma fa yóbbu ci sëñ Mbay waaye sëñ Matar Khady moom laxa sama fa yóbbu sëñ Moustapha si gunge ma ak sëñ Modou Fati si ma ñëw Daaru Salaam fekk fa sëñ Ibrahima mii muy koo xam ne ab jullit la boo xam ne nii njullit ga mëne su ko nattable ak dara sunug defaru ci mbirum yar ak xam moom lañ ko amee kon rëccuwuñu luñ ko doon royee luñ koy ñaanal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk ay xéwalam fa mu nekk nekkoon na daara joo xam ne nag eh, mbooleem ña jaar daal eh, am nañ xéewal ci seen mujj ndax tërbiyaa nga fa am njàng nga fa dañ waxtaan nag day nit koo xam ne li ma xam ci moom tuuti la waaye xam naa ni doy na boo dee wut ku baax ba dajeeg say muxtaar jël ku baax a ngi noonu boo dee wut ku nangoo liggéey te am jom boobu la rocc diir ba nga xam ne nekk nañ fa noonu moom noo daa bokk di sukk di lekk bokk nañu bokk na ci ñim fi ñim fi defaree ku ñuy wax sëñ Jiili Mbàkke di doomi Seex Muhammadul Fadal fii moom it bokk na ci ñi nga xam ne da daan ku suñ Maxtaar waxtu ne bokk na ci ñooñu ku ñuy wax suñu Abdul Ahad doomi suñu Abdul Karim doomi Seex Muhammadul Fadal waaye waa kër suñ Mahmudan Jobbi yi ñoom daanaka mbooloo lañ duñ kenn duñ ñaar duñ ñett ñëpp ci daaray suñ Maxtaar ji lañ jàngee bokk na ci ñooñee suñu Abdou Samad moom Seex Sohaybou moom it fii la jaaroon fii la bindee kaamil booba ñun ñu ngi fii ak moom bokk nañ ci ñooñu ba tey it Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad ndax bokk nañ ci ñooñee suñ daam atta suñ Cheikh Bintu ay rakam yu bari suñu Abdoulaye ca la bokk maanaam ñu bari lañ daal lépp lu mu daa def daana ci sàmmanteeg sunna taalibeem gi nag moom sëñ bi daanaka rek ñëpp la defoon ñi ay sangam yéen ñu ko xam yëpp xam ngeen xayaatu taxassuf bi mu doon dund foo ko fekk fu ne sëñ bi mi ngi gal-gal bakkanam bi rek xoj ko fu mu toll mi ngi xoj bakkanam bi di ko def loolu mu bañ di ko teg lu mu bañ sëñ Maxtaar Xëri yàlla nañu ko yàlla fayal yéen ñi nga xam ne xam ngeen ma xam nga dem naa fu ne jàng naa lu ne waaye nee woon na ma foo man di dem ak buuma ngi ci sa waqi woo xam ne saa bu ma la soxlaa su ma ko ñoddee nga wuy si ma j'ai fréquenté les grandes universités françaises fu ne dem naa fi réew yi arab jàng naa lu ne def naa lu ne waaye la sëñ Maxtaar Xari bëggoon ca man te mooy toog di jàngale alxuraan ca laa mujj alhamdulilahi rabbil alamina ba ma ca mujjee ak bëggam alxuraan tax na li muy néew néew kàttan ak li koy ñàkk-ñàkk man tewul sabu weer koor saa bu weeru koor teroo day wax ne da ngay ñëw taxaw ci sama buntu lal bi ma gappare ko ci sa wet nga may naafilal bi loolu def na ko adu yu yàgg maa ngi moom te booba mënut a taxaw moom day toog gàppare ko ma taxaw ci wetam ci buntu la am bi nii di naafila ba ba gi jeex def nañ ko at yu bari kon ak bëggam alxuraan kenn mënu ko nat mi ngi ñaanal bu baax alaaj sëriñ lii mu bëgg ci concours bi ak liggéeyam bi compagnie bi ak ñi ko seqal ñëpp yàlla na yàlla jàppale ko ci ba defal ko ci nag lu kawe njortam li leen wax ne lii leen jëlale woon fii ci eh, Daaru Salaam Bambuk di barab boo xam ne eh, ni ñu koy waxoon ci njëlbeen leer gi rek barabu alquranul karim la euh, sant yàlla suñu borom tabaraka taala bu baax a baax a baax euh, ci ñëw gi ñu fi ñëw euh, di sant waa yaatal mbindum alquran la ko dala ci sëriñ alhaaji sëriñ Seck muy jëwriñ jë sëriñ Fallou Seck ak mboolem mboolem mi nga xam ne ñoom la ñëpp ci liggéey bi at mu jot ñu kenn ren ñu daragaale woon ko sëriñ Maxtaar Xadisi ñu ñëwoon fii ci Daaru Salaam Bambuk gi nga xam ne ay kàngam yu baree baree bare naane nañ fi Eh, di barab bi nga xam ne bokk na ci barab bi borom bi tabaraka wa taala di sàmme alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun kon li leen leen indi loon wutu woon ci mboolem équipe bu yaatamil alquran àndoon ak Serigne Mourtada Gaye ci eh, caméra bi àndoon ak Serigne Mahamadan Dieng eh, ci liggéey bi ci wet yëpp la féete woon moom macha allah ñu àndoon ci yoon ak sunu nijaay sunu wajur Cheikh Ibrahima si ak mbooloo mi nga xam ne moom la àndaloon ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.